xalaat lépp di wax ne lii ambition la doon président doonu ne da jekk ñëw si salle bi nii rek nit ñi di wax nga ne damay dama yëkkati kàddu comme ñenn ñi pour ñu pour feeñ wala pour pour négocier beneen poste man defuma lool dama am ambition bi may ñëw gëm sama dëkk yaakaar ne war naa mën a contribuer ci ni football bi di doxe rawatina ci assemblée générale bi si AIC avenir ni muy doxee ma indi ci sama tuus je ne suis pas commerçant par défaut bon plutôt je suis commerçant par défaut mais damaa jaar fi gars yi war a jaar pour ma war a mën a laaj équipe bi mooy loolu dara fii wax nañ ci sànq nit ki dépassé na dépensé na plus de trentaine de te équipe bi demul fenn lan moo tax demul fenn bu doon ay moyens la dem na fenn bu yàgg instant bi ay idée soxla fédérer force yi booloo ci ñu mën ta bëgg dama dama bëgg même su may négocier je reste nag négocier moom kenn këlan fekkee ba parce que am naa ay grand am naa fi ay xarit am naa fi kii nit yàgg naa jàpp ñu ne ko bàyyi loolu naa mais ambition bi ma am mooy nekk président plaît ah bu dee man Pape Diagne kese Baba Diagne du ma dara. dama fay ànd ak samay nawle ñuy waa génération 2003. lépp lu ñu waxtaan lu fi ñëw waxtaane nañ ko te instance la boo xamante day dox ci ay normes dañuy waxtaan benn point moo nekk deuxième point bi mooy Badiane doomu dëkk bi te jàpp nañ ne peut li ñu yaakaar suñu équipe bi peut être ñëwee dina ko mottali am nañ yaakaar si moom nit nañ yaakaar rek ngay am si moom ku mën di doon kuy takk jabar sax yaa yaakaar ngay am si moom mën naa ñëw bon mën naa ñëw baax yaakaar rek lañ am yaakaar boobu ñu am si moom tax na retiré naa sama installé en tant que président avenir de Mbacké pour 4 ans. parce que père yi tax ma koy gërëm man bu ma mën a football moo tax ma fii ci gàll. ñu bari fii nag xëy na xamuñu parce que maa ngi dégg génération deux mille trois génération deux mille deux kii moo ma jàngal ko koy jël. moo ma jàngal. kamaan baax. Abdou Dieng miy toog. Cheikh Dieng waaw bi jëlaat ba moom Thiel. waaw naa ko. bu doon ànd man. jëm bi dafa que coow li yàgg na te yàgg ba ñu commencé ba tey wax ci bari ñu doon. mooy ma ci. parce que nekkuma ci ah, am na lu may doon ci football. man nag damaa nekk nit koo xam ne. bu ma def ngistal damay def te yàlla parce loolu ñu bari mën nañu ko seeni fii ci bi parce que am na ñu ne am na ñu ma seqal ñoom su ko nit yéegee ñoo ko wax dama ko wax maa sas sas bi ngeen ma sax dafa bëri trop parce que xam naa ne am na yaakaar doonam sama diggante yéen te maa ko waat fii nii tant que maa ngi wér di am jàmm di mën a dem bu wér mosoo wax sama kàddu dinaa ko respecté lu ma mënul woon sax dinaa ko def loolu nag mooy waxi góor Badiane li li tax ma wax lool parce que yaakaar dafa fort avenir du Mbàkke su ma ko jëmewul su ma ko jëmewul kanam du ma ko delloo ginnaaw yàlla rek mooy dogal man sama sañ-sañ mooy jëmale ak avenir de Mbàkke kanam te fi ma koy jaarale mooy dama bëgg képp ku nekk Mbàkke dund sport waxuma sax football ñu booloo nekk benn parce que man kese mënu ma dara. ñaari loxo la am ñaari tànk benn jëriñ bu ma amee tàmp rek dama jóg tàmp kese su ma ko amee du ma mën a ñëpp lañ soxla man képp ku nekk si ci mbàkk yi dund sport man damaa bàyyi sax football dund sport soxla nañu parce que club bi ko soxla dafa war a weesu fu mu toll nii suñu man sama mooy bu ñu fi defee première année nekk ci club professionnel génn amateur te loolu man kese mënu ma ko def. xalaat ku mu mën di doon man déglu naa sama téléphone numéro bi ma man numéro sama numéro mooy numéro Sénégal mooy numéro bu réewum Sénégal 77. 394 77 77. xale buy jàng sax mën na koo jàng xalaat bu mu mën di ndaw ndaw boo ma woowee dinaa déglu te dinaa ci bàyyi xel. te lépp lu may mën di def dinaa ci waxtaan ak ñu ko waxtaan te man mënu ma dara damay jéem damay essayer. te war nañoo weesu football bu ko benn nit di décider loolu dafa war a jeex il faut que comité directeur bi ñi ciy bokk mu doon nit ñoo xam ne dañoo gëm football gëm li ñuy wax te ku ci jël poste mu leer la ne poste bi mënoo ko assumer boo jël parce que poste da nga waa Mbàkke dañoo jël sas la nga ne man maa nekk fo maa ngi jël ki nga xam ne maa ngi fóot maa ngi mm-hmm. kon maye bu ko jour solee mu xeeñ sa responsabilité jour bu nekkee si biir télé bi gaañu mënoo koo faj te yow yaa ne woon yaa koy faj sa responsabilité la donc ku ci jël poste loolu poste boo xam ne da koy respecté nga xam ne engagement la dëkk bi moo la fal Mbacké du cinq personnes di dix te Mbacké du dëkk bu ndaw c'est pas une petite ville loolu il faut que nit ñi def ko seen bopp ñun dañoo toog suñu dañoo am wàllu ci football Sénégal te bu ñu booloo nekk benn rek nekk benn say boo ko mënee Ligue 2 sax mais ko def bu fekkee ne moyen la ñun dinañ def li ñu lépp boo man mu ne mooy mën di def moo wax si man kese léegi mu rek laay wax parce que man kese mënu ma dara loolu da nga koy répété mënu ma dara tey sama tànk bu dee métti kese su ma toog ma koy jóg vice président wala secrétaire général mooy ñëw tey su ma xuloog moom fu ma jëm wala man ma ne kese man maay décidé fu ma il faut que ñun ñëpp ñu booloo ñu nekk benn man sama discours ci loolu laa koy taxé mooy la solidarité l'entente et la paix ñi fi nag di wax ñëpp nag ñëpp ku ci nekk da nga am la naqari te maa ngi gërëm aussi Alioune Diouf président bu parce que jiite yombul jiite yombul club bi ñu ko yoree delluwul ginnaaw ci moom ñi mën nañu ànd ak moom ñi ànd ñoo moom mais club bi delluwul ginnaaw te loo ci mën di wax am na lu mu ci def ñu néew ñu bari am na lu mu def mais kooku waruñu ko mën a xaram man dama koy woo mu ñëw parce que am nga lu mu def ci football am nga lu mu xam ci football il faut ñu nangu ko ñëw ñu ànd ñu bokk liggéey parce que Mbacké soxla na ko soxla na ko te am te li tax Mbacké soxla ko mooy expérience dafa am solo te il a l' expérience il a géré une équipe pendant cinq ans c' est pas petit muy mel na tey moo taxaw fii di xeeb benn wala jënd wala may xeeb Moussa Diop wala may xeeb bu kase wala may xeeb keneen ak keneen parce que football toll na foo xamante ni si du. liggéeyu benn fan ki ci am ñetti fan yamut ak ki ci am benn fan. kon man dama koy woo muy moom muy mbay si muy ñeneen ñu nekkoon ci bureau ñëpp ñu ànd ñoom liggéey parce que Mbàkke kese moo ñu ñor su Mbàkke réussir doon ñu sax tudd tur nit Mbàkke la ñuy tudd doon ñu tudd tur nit on ne parle que de Mbàkke nañ jàppoo booloo jëmale suñu équipe kanam jëmale suñu bopp kanam man daal loolu laa am lu may wax te tamit waxoon naa dara ci rajo bi ñëpp dégg ko mooy Mbàkke boo fi nekkee président dootuñu jëlati lu yëpp oto loolu moom jeex na fi incha allah rabbi dinañ nekk club bu respectable comme tous les clubs damay wax chaque fois ne football boo ñëwee ni ngay taxawee rek yeneen sa adversaire ni mu lay gisee rek yow gagné nga 1-0 déjà alors nag gagné nga 1-0 boo ñëwee am noo mel rek yow déjà perte ko donc loolu dafa baax mooy l'image de l'équipe image bi dinañ ci def dinañ ci góorgóorlu luñ ci mën ba nga xamante ne si club bi dina dem foo xam ne fu mu dem dañ ko respecté même bu équipe équipe gagnée sax dina xam na loolu dinaa ci sama waa dinaa li ma mën te joxe naa sama kàddu te dinaa may wax mooy jàpp naa ne man tey jii nii naa ne tey jii nii parce que fal nañ ma man bokk naa ci comité directeur léegi man damay joxe sama cotisation symbolique mooy lii sama contribution la pour comité directeur kii joxe définir guñ montant bi ndax man sama montant ma koy joxe je donne un million tout de suite mooy sama bu sama participation comité directeur lu may wax la loo sama kàddu te dinaa ko respecté ci li ma mën lépp dinaa ko def pièce de 20 000 francs au groupe la war a jël parce que dégg naa fi 15 000 dégg naa fi 25 000 te jamono dafa naqari corona baa ngi dëkk bi ñu waroon a liggéey liggéey bi demul yoon kon jàpp naa ne 20 000 nekk na montant boo xam ni nekk ci boo xam ne football bi ñor na la war na faa mën a joxe 15 dans 15 jours boo joxee 15 jours nag comité directeur boobu noonu dindal Angola comité directeur boobu noonu moom mooy fan leer doo joxaale <laughs> Père doo joxaale. sama sama participation est-ce que. may leen président. may leen président.